asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar euh, di def benn alerte euh, ku ne xam ne dégg ngeen Serigne Mame Thierno mi nga xam ne euh, mooy Serigne Mame Thierno Mbacke moom daaru ma naan li mu wax ñëpp dégg nañ ko muy ki nga xam ne maamam ju baax ja wala waajuram bu baax wa Serigne Mame Thierno Ibrahima Fati bi Serigne Touba génnee moom la dénkoon jaboot bi moom la yónnee woon fa nga xam ne fa la nasaraan ya nekkoon te ragalu leen dellu ci ginnaaw Serigne Mountakha euh, kenn nam ci moom di wëllëreem ci moom dégg nga ni ma ko leerale sëñ Mountakha nag mooy sëñ Touba ku yaakaaru sëñ Touba nag man taxuma ngay wax ku yaakaar sëñ Touba tax dégg ngeen ni sëñ Mountakha wax man nag maa ngi wax ci turu tur ci turu kenn sama turu bopp laa képp koo xam ne yaakaar nga sëñ Touba te nekk walan kuy volontaire ngir jaay sa bakkan ngir jëmmi sëñ tubaa waaye nag te boole ko am xel ànd ko tamit ak dal mooy da ngeen ni sëñ Mouta wax ñi nga xam ne nag ñoom laay alerté mooy ñi nga xam ne dañoo nekk Touba te nekk ay salafis wala ñu nekk ñoo xam ni dañoo ne ci dëkk pare di woote ni yeneen yeneen njàngale yu bokkut ak njàngalem sëñ ba pare di wut ay nit ñoo xam ni dañ leen di jël di leen monté daje ñoom ay réunion ngir contre Serigne Touba ñooñu lay waxal xam nañ leen xam nañ suñu xam nañ ñenn ci ñu leen di jàppale ci dëkk ak ñi nga xam ne dañuy manifeste bi contre Serigne Touba ak ñi nga xam ne dañuy woote ni ay yàlla yàlla lañ dégg nga nga xam ne gëmuñu ya gëmuñu gëmuñu kenn gëmuñu yàlla gëmuñu Serigne Touba gëmuñu yont bi dégg nga ñoom ñoom di contre bi ci dëkk bu sell bi Touba xam nañ fi ngeen dëkk ñi nga xam ne dañ fa yor ay centre commercial di liggéey ci dëkk bi ak ñi nga xam ne ay kër lañ fi yor te ku contre Serigne Touba ñu jàppale la Euh, jàppale la ci sa liggéey gis nañ ko fii gis nañ ñoo xam tam dégg kom la euh, euh, dañ leen di financé ci yeneen yeneen réew yi ñu ñëw di ko dugal biir dëkk bii di ànd ak ay nit dégg nga di fi tabax ay jàkka dégg nga la comme di fi tabax ay ay jàkka ngir di contre Serigne Touba dégg yooyu yëpp xam nañ ko buñ buñ buñ jullee ba pare wut koo xam ne dégg nga la comme day na ca jàkka ja di leen wirdal ak yooyu mais buñ demee ñu des ak seen waxtaan te waxtaan wa jëmul lu contre Serigne Touba kon nag yéen la ñuy menacé yéen la ñuy waxal bay boo ngeen teel a takk seen i bagage te génn ci dëkkul seen biir Touba maa ngi woon ak képp koo xam ni yaakaar nga sëñ Touba dégg nga te man cee volontaire ngir jëmi sëñ Touba ñu ànd liggéey sëñ Touba ci dëkkul seen bi ak ci ak ci réew mi feneen fu man doon foo defee loo xam ni neexul sëriñ bi wala méngawul ak sëriñ bi ak waa kër ñu fekk la fa nga nekk toraxal la te toroxal nga méngoog loo xam ni duñ la rey ah duñu la gaañ loolu tam maa ngi koy leeral ñëpp xam nañ leen am na ci ñoo xam ne sax yoon nañ seeni i am na ci ñoo xam ne yor nañ seen i xam nañ fi ñu ak ñi nga xam ne dañoo ne ci dëkk bi di woote ni déngale koom ñoom daal sëñ tubaay lépp ba pare di jàppale ñi nga xam ne dañoo contre sëñ tubaa xeex sëñ tubaa kon nag baye boo ngeen waaj yéen la ñuy waxal xam nañ leen te lu ci war danañ ko def ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu liñ ciy dool rek mooy am na ñoo xam ne tamit xam nañ leen am nañ fi ay place ñu ngi fi yaxantu waaye jumaay sëñ tubaa ji sëriñ tubaa tëddal boppam dañu ne ay sëg la biñ ne ay sëg nag du ñu fi jullee su àjjuma jotee dañuy def benn cokkoor dem jullee ji Mbàkke dem jullee ji Mbàkke ku mën a ku mën a bàyyi jumaay Sëñ Tuubaa ji nag ak fi mu tëdd dem jullee ji Mbàkke war nga ko mën a aalub dëkkam dem seeti feneen ñooñu tam ñi ngi leen di alerte na xam nañ leen bu baax a baax ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di woo di woo tam jeunes yi nga xam ne bëgg nañoo liggéey Sëñ Tuubaa ak ñi war a liggéey Sëñ Tuubaa fu ci waay xam kenn rek na ko dénoncé ñu xam ko am ci ay profil leer la ca war ñu def te kenn bañ a fajal sa bopp ci lu ñu yëgul ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam